mbokk auditeurs yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM dal leen ak jàmm ci seen euh, spécial euh, hommage à maître Ousmane Seye xam ngeen ne waxtu bi seen émission démb ak tey moom ngeen di am dimanche bu jot euh, wante nag tey dañu ko def démb ak tey spécial ngir waxtaane maître Ousmane sëy avocat bu mag boobu génn àdduna alxamis bi ñu weesu dellu di ko jaale njabootam di ko jaale Sénégal yépp di ñaan yàlla jërëm ko te xare ko àjjana nit nag bu dëddoo lépp lu moom ñaare dañu koy wax te lu lu rafet itam lay doon seede yu baree bari nag jib ci maître Ousmane Seye euh, dinañu leen dégtal euh, kaddu yi euh, ñu dégg keroog ci levée du corps ba hôpital principal bu Ndakaaru demoon nañu fa mais également ñu jokkoo ak ay naataangoom yu nekk ba bitim réew ñoo xam ni ñoo waatandoo ak moom fii ci Ndakaaru en 1985 ndax boobu jamono ci la dugg ci baro bi nekk avocat seede yi nag dañu koy tàmbalee ak ak kilifa réew mi président Macky Sall mu yëkkati ay kàddu keroog ca hôpital principal bu Ndakaaru delloo njukkal maître Ousmane Seye rafetlu itam seen ànd ci wàllu politique président Macky Sall itam ci kàddu yooyu mu yëkkati ci wàllu nasaraan jàpp leen ci tënk ne euh, daal dina ci delloo njukkal koo xam ni taxawu na réewam te itam daan na fàtte boppam yenn saay euh, wala muñ lu baree bari donte sax ci ànd bi ci wàllu politique euh, di ci liggéeyal Sénégal yenn saay seen intérêt coalition euh, daan nañu ko laal kon ñu ànd teewlu ay kàdduy seede président Macky Sall euh, ci maître Ousmane a traversé cette vie ici-bas un homme pétri de valeurs disponible pour son pays engagé sans réserve aux côtés de son peuple brillant avocat maître Ousmane Seye a eu un um parcours remarquable, un um parcours ponctué par des causes aussi célèbres que variées. Il était soucieux de justice et d'équité, sensible aux souffrances de ses compatriotes, contrariés par les aléas de la vie. Maître Ousmane Sey avait une haute idée de sa profession dont il mesurait l'énorme poids dans la marche de la société. Il savait en effet que le droit n'est pas une discipline quelconque, mais le levier par excellence de l'état de droit qui assure l'équilibre de la communauté humaine que nous constituons. C'est ce même sens de la responsabilité qu'il a guidé en politique, militant très engagé, leader confirmé et allié loyal. Maître Ousmane Sey s'est distingué par son dynamisme, sa générosité, son courage et son esprit de solidarité. J'ai toujours eu une grande admiration pour lui, une grande affection, parce que malgré l'âpreté sur le terrain politique, il savait toujours faire preuve de tempérance et de dépassement, même lorsque les intérêts de son parti ou de sa coalition étaient touchés. Et c'était un homme de compromis. La grandeur de la nation sénégalaise, l'affirmation des principes de l'état de droit et le bien-être des populations étaient au cœur de son action politique. Humble et franc, Maître Ousmane Seye était un modèle d'acteur soucieux d'un débat public de qualité et de développement des terroirs en tant qu'éminent membre du Haut Conseil des collectivité territoriales dont il était vice-président. Je voudrais, au nom de la nation tout entière, présenter nos condoléances outre à sa famille, à cette institution et à sa présidente, Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Le Sénégal perd en maître Sey, un de ses meilleurs fils,

prêté serment en même temps que maître euh, Ousmane Sey le 18 janvier 1985, euh, maître Keita est aujourd'hui conseil principal à la Cour pénale internationale. Maître, euh, nous vous présentons d'abord nos condoléances pour la disparition de votre confrère, maître Ousmane Sey, je le disais tantôt, à qui vous avez que vous de l'homme les condoléances. Je le également euh, au Sénégal, à sa famille biologique et à notre famille euh, professionnelle. notre CEU va nous manquer à tous. Nous avons prêté serment, notre CEU et moi, il y a plus de 38 hivernages. Ce n'est pas hier, c'est avant-hier Et lorsque nous avons prêté serment, nous étions la première promotion euh, d'avocats entre guillemets sur euh, examen qui s'appelle le CAPA, certificat d'aptitude professionnelle pour la profession d'avocat. Et je dirais même que c'était un concours, tellement c'était sélectif. Notre serment a été prêté sous le bâtonnat de maître Fadilou euh, Et euh, toute notre promotion n'a donné que des confrères euh, de renom, assez brillants. Les souvenirs que j'ai avec maître Sey sont, très nombreux. Je ne vous les pas tous. Je dirais de lui que je retiens dès le début C'est un confrère euh, brillant, intelligent, vivace, incisif, tenace, mais euh, adorable confrère, gentil, même si le mot a l'air euh, galvaudé. Mm. Un confrère euh, respectable et, respectueux. Et il cultivait une certaine irrévérence. Et c'est avec la même irrévérence qu'il nous a soudainement euh, quittés. Et puis qu'il un certain art de, vivre aussi, il la vie, mais il a cultivé aussi un art d'être, de, savoir être. Donc je dirais que nous avons des souvenirs de, de de serment, de promotion qui organisait des, des soirées festives euh, que tout le, le barreau aimait bien rejoindre. Nous avons fait des excursions ensemble à, à l'extérieur du, du Sénégal et également à l'étranger. Lorsque j'ai quitté le barreau après trois ans pour rejoindre la cour d'appel de Paris, je suis revenu et avec euh, Didier Préra, nous avons organisé un, un jumelage euh, du barreau du Val-de-Marne et celui du, du Sénégal. Et notre fille était toujours dans nos allers-retours euh, pour, euh, pour former les, les, confrères, les accompagner et aussi euh, savoir euh, joindre l'utile euh, au très agréable. Donc c'est un confrère qui va énormément euh, nous manquer. sur le plan professionnel comme euh, sur le plan euh, humain. Je pense qu'il est allé euh, rejoindre son complice de toujours, Maître Ibrahim Akan de notre promotion, un de nos compagnons de longue route. Je sais qu'ils sont ensemble dans la paix éternelle. C'est donc un très triste euh, mois de mars, madame. Oui, euh, Maître Keita, euh, il est clair que vous avez beaucoup euh, côtoyé Maître euh, Ousmane Sey. Quelles sont ces valeurs qu'il incarnait euh, et qui, selon vous, devraient inspirer aujourd'hui vos jeunes confrères ben, les, les, valeurs que Maître Sey incarnait à mes yeux, je pense que certains confrères du barreau du Sénégal sont mieux placés pour les décrire, mais ce que je peux dire en tout cas à l'endroit de nos plus jeunes confrères, et qui peut être valable aussi pour les confrères euh, de notre génération, c'est déjà être compétent. Être compétent et être humble. être persévérant et être courageux. Parce que dans cette profession, qui tire de son nom Avocat, advocatus, au latin, en latin, ça veut dire au secours. Quand on porte ce secours prochain, on vit avec les problèmes des gens. Euh, quand nous recevons leur confiance et leur confidence, nous devons faire preuve d'humilité, de courage, de persévérance pour eux, parce que nous portons leurs paroles, nous les assistons, nous les accompagnons dans leur douleur quotidienne. Donc faire preuve de compétence, d'humilité et surtout faire preuve euh, d'éthique et du respect de la déontologie. Parce que c'est une profession avec des règles et des usages. Et ces usages-là sont notre socle professionnel. Et ce sont ces règles-là qui nous, gardent et qui font de une communauté un peu à part avec les magistrats et les autres professions juridiques et judiciaires. L'éthique et la déontologie sont des clés de notre profession. Et je retiens le maître C, qui avait le respect de la déontologie et de l'éthique. Hmm. je me souviendrai toujours de, de éclats de rire parce que on pouvait ne pas être d'accord avec lui, mais nous discutions librement, on argumentait. Il y avait souvent des éclats de voix, mais ça terminait toujours par un, éclat de rire. Mm. Un rire euh, très physique, très sonore, très visuel et très humain. C'est un triste mois de mars. c'est un triste mois de mars. ce sera la dernière question, Maître Keita. Qu'est-ce que vous retenez de particulier euh, de Maître Ousmane Sey Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez, l'homme C'est un confrère euh, qu'on peut approcher très facilement. En, en mots euh, on peut réussir dans la vie et, rester à portée de à portée de conseils. quelqu'un de très humain et, et de très simple, à l'humour euh, incisif, un garçon courageux et, et très agréable à vivre. Merci, euh, Maître Keita, pour ce témoignage euh, sur euh, Maître Ousmane Sey. Nous vous présentons encore nos condoléances et je rappelle que vous êtes confrère à Maître Sey. Vous avez prêté serment avec lui ici à le 18 janvier 1985. Vous êtes aujourd'hui le conseil principal de la internationale, chef aussi du bureau de la défense. Merci, ça a été un Notre confrère nous manquera, il nous restons avec un autre avocat qui a prêté serment aussi euh, en même temps que maître Ousmane Sey. Euh, lui, c'est maître DJ Daniel Prera. Il a euh, collaboré avec maître Ousmane Sey après la prestation de serment dans des dossiers. Euh, maître, merci d'accepter de faire euh, ce témoignage sur votre défunt confrère et nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci beaucoup, madame, pour ces condoléances.

Euh, ce qui m'a le plus marqué euh, euh de mon confrère euh, Ousmane Sey, et d'abord sa jovialité, c'est quelqu'un de très jovial, de très ouvert. C'est aussi un avocat qui était vraiment un féru du droit. un excellent juriste Euh, entre avocats quand nous disons donc on fait qu'il est un excellent juriste, croyez-moi que cela euh, euh, est quelque chose de, très fort. Et je me dis souvent que Feu Ousmane Sey, lorsqu'il était dans son cabinet, il travaillait le droit comme le professeur Cheikh Anta Diop travaillait l'atome dans son laboratoire, carbone 14. Mmh. Je dis jouer sur les concepts juridiques et aimait travailler le droit pour trouver toujours une solution à un cas pratique qui lui était euh, posé. Hmm. nous avons beaucoup cheminé ensemble et c'était un, ami et un, et que j'ai respecté beaucoup pour ce qu'il était et pour ce qu'il représentait pour le barreau. Hmm. C'est quelqu'un qui a eu à faire, en plus du droit, de la politique. Hmm. Euh, euh, nous avons vu euh, comment il a eu à évoluer sur le plan politique. Et c'est difficile souvent de concilier les valeurs de l'éthique professionnelle d'avocat et celle de l'éthique professionnelle, de l'éthique politicien. Euh, euh, je pense qu'elle a pu euh, concilier les deux. Mmh, Est-ce que, à votre avis, il a réussi cette conciliation Mais Je pense qu'il a eu, à le avec élégance et avec doigté. Parce que euh, on beau ne pas aimer ses positions politiques, mais quand il exposait les raisons pour lesquelles il les avait, euh, de manière très claire et, et articulée. Je pense qu'on respecte souvent ces, positions. Et je pense que c'est quelqu'un qui a été pendant longtemps avocat de l'État du Sénégal. Mm. Et connaissant son parcours politique, il a été très proche euh, du PDS, du président Abdoulaye Wade. Mm. Et les euh, vicissitudes de la vie politique ont fait que lui, en tant que politique, s'est retrouvé dans notre port. Mais en tant qu'avocat, lorsqu'il a été question pour lui, en tant qu'avocat de l'État du Sénégal, devoir intervenir contre euh, Karim Ouad, qui est le fils de son mentor Abdullah Ouad, il a eu une position de principe que j'ai beaucoup appréciée. Ah, parce qu'un avocat, c'est d'abord ça aussi, avoir le sens de et euh, euh, ne pas accepter de changer comme ça parce que tout simplement ce sont les circonstances du jour qui, qui J'ai beaucoup admiré qu'il n'ait pas accepté de plaider contre euh, Kanye mm. compte tenu des relations qu'il lie avec euh, avec le PDS. Mm. Oui. Alors, il est clair que Maître Sey euh, était un grand avocat, mais il était surtout remarqué pour avoir été dans presque tous les grands dossiers. Euh, qu'est-ce qui lui a valu cela, Maître, Maître Est-ce par expérience ou euh, voilà, il a quelque chose de plus que, peut-être beaucoup d'autres avocats euh, Un, avocat qui réussit, c'est souvent un avocat compétent. Mm. en ce qui concerne Maître Euh, mon, mon collègue, euh, mon confrère Ousmane Sey, je le réitère, c'est un, un, avocat, enfin un juriste extrêmement compétent. Mm. Et euh, être un bon avocat, c'est pas uniquement maîtriser son droit. Mm. C'est maîtriser son droit d'abord, mais aussi savoir comment euh, rendre cette expertise en fonction des dossiers qui sont confiés, des situations auxquelles nous avons à faire face. Et c'est en cela que l'expérience est importante. Euh, un homme compétent peut être un homme inexpérimenté. Un avocat compétent peut être un avocat inexpérimenté. Euh, Maître Ousmane Sey avait l'avantage d'être un avocat compétent et un avocat expérimenté. Voilà. Et c'est ce qui faisait aussi euh, l'une de ses marques de fabrique. Et on le respectait pour cela, pour, pour sa noblesse, dans son attitude en tant qu'avocat et en tant comme euh, politique. Mmh. En tant qu'enfrère, ce sera la dernière question. Qu'est-ce que vous avez vécu de particulier avec euh, Maître Ousmane Sey qui vous marquera euh, à jamais Ouais, moi, j'ai beaucoup, j'ai vécu beaucoup, de choses avec euh, mon confrère euh, Ousmane Sey. D'abord, nous avons prêté serment ensemble. en tant qu'avocat, ça marque. Hmm. Durant toute votre carrière, vous euh, distinguerez toujours parmi tous vos confrères, ceux avec lesquels vous avez prêté seulement ensemble. Vous êtes des jumeaux oui. professionnels oui. et ça, ça marque. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fort que j'ai partagé avec lui et euh, j'avais des relations aussi avec euh, euh, sa famille, même si c'était des relations pas très poussées, mais des relations très sincères. Mm. Et euh, j'ai eu à un ou deux dossiers avec lui. Mm. Et je l'ai trouvé dans un, dans les dossiers et il m'a toujours dit euh, Didier, il m'appelle Didier, C'est avec plaisir que je ne m'oppose pas à ce que tu interviennes à mes côtés. Mm. Et ça, pour un avocat, ça dire beaucoup de mm. Quand nous savons que nous sommes, dans une profession parfois euh, certains euh, hésitent accepter voilà, que d'autres, voilà, Mais lui, il a toujours été très généreux de ce point de vue-là. Et j'ai toujours pris comme euh, une marque d'estime qui est euh, évidemment réciproque. Mm. Et euh, c'est dommage que nous avons perdu en confrère de cette, calibre. Et c'est le barreau sénégalais qui perd plus qu'on mm-hmm. Et c'est la, c'est la famille judiciaire aussi, mm-hmm. sénégalaise, qui fait euh, un excellent juriste. Mm-hmm. Que son âme repose en paix et que de là où il est, qu'il puisse toujours protéger et sa famille euh,

au rang d'ambassadeur des corridors par le président du mouvement des entreprises du Sénégal lors d'une soirée des corridors. Cette réaction qui avait ému tout le monde, nous vous la proposons avant de passer à la version Wolof des témoignages sur Maître Ousmane Sey. Ah, je voudrais d'abord saluer ma sœur et consoeur Madame le ministre euh, Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, remercier le président Manik Tchoup et son organisation, la MEDES, e e pour cette haute distinction dont je suis fier. Mais je voudrais surtout féliciter le président Manik Tchoup parce qu'il a gagné le pari sur l'histoire. Très tôt, M. Manik Tchoup, vous avez misez sur le secteur public parce que vous avez compris que le secteur public est porteur de croissance et le secteur public est porteur de l'emploi. Je vous félicite pour ça et je vous dis bravo. Et je dédie cette distinction à mon épouse et à toutes les femmes pour faire plaisir à ma sœur aussi. kon mbokk yi kàddu yu maître Ousmane Seye yooyu ngeen doon dégg mi ngi ko yëkkati ci soirée corridor boo xam ni euh, ca la jotee raayab ambassadeur di CORI euh, président Mbagnick Diop njiital MEDES joxoon ko ko mu wone ci mbégteem euh, gannaaw nag kàddum yooyu dañuy des justement ak président MEDES ndax xaritam la woon lu baree bari dox na seen diggante ci ay kàddu yu seede yu mu ñu dénk bi maître Seye dëddoo kon ñu ànd teewlu seede. président Mbagnick Diop njiital MEDES dellu siwaat wéyal itam euh, seede yi ci maître Ousmane président ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la jaale euh, sa xarit sa frère ni nga ko waxee maître Ousmane Seye waaw Fatou maa lay gërëm di la sant di ko jaale aussi tey ma am vraiment métit comme ni nga ko waxee maître Ousmane suma xarit la woon suma frère la woon mooy suma mag la woon aussi ñu yàgg lool boobu dara du dara ñu nekk xarit amul presque corridor boo xam ne ne du teew ànd ak soxnaam yàlla dogal bii mujjee eh, léegi juróom ñetti weer rek la def huit mois euh, ma jokkoo benn kuréel comme ambassadeur euh, mu kontaan si lool def discours bu rafet ma wax Aïssata Tall ministre des affaires étrangères na ma ko joxal mu jox ko ko bu mu jël soité li ma marqué mooy lu mu lonkee soxnaam bëtu ko sunu bët yi Euh, jàkkaarloo mu kontaan ma gis lu mu kontaanee. Mm. Euh, man tamit am mbégte parce que dafa nekkoon loo xam ne daf ko bëggoon. waaw euh, fu ñu daje rek bu ñu waa mañ yow depuis boobu ba léegi yaa ngi jox avocat yi rek. Mm. Ah, jox nga ay secrétaire jox nga Assane jox ma Ndiaye jox nga Sidiki Kaba jox nga diw jox nga diw ba léegi jox ko loolu yàlla dogal. deux mille vingt bi la am donc benn kori ah. fu mu nekk nag nag yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na xippee aljana euh, moom c'est un professionnel euh, rax si aussi mu nekkoon avocat euh, réew mi dans les années deux moo doon suñu avocat si diggante bi doon nañu ay dossiers yoo xam moo ko doon gérer dossier boo xam ne sama xel si lay dem moo doon benn affaire bu ñu amoon ak ak euh, Malick Gakou moom lañ moo yoroon suñu dossier parce que journal yi xamoon lu mu bind Malick Gakou mere woo ñu porte ñu plainte ñu dem tribunal ndeysaan moo nekkoon ci dossier bi si lool donc euh, Ousmane daal xam naa ne Fatou su may wax si moom fii ba suba mën naa si wax parce que nit ku baax la ku baax la baax moom mënul weesu baax mais lan moo la gën a marqué si si maître Ousmane Seye jamono bi nga ko xamee yëpp dafa doon défendre ay cause perdue tey mën naa wax ki def lu mu doon def il y a vingt ans mooy maître Moussa laay gis muy defaan ay cause yoo xam ne ne mën nañu wax ay cause yu difficile la waaw dafa ñeme woon comme lu ko tubaab wax mouiller le maillot di defaan ñoo xam ne ne amuñu woon doole mais mu ko dëkk doon def par principe loolu lu ma marqué si moom la woon soo xam ne yàlla bind na ko si ay tuyaaba yu bari parce que nga gis nit mu am problème la défendre comme man sama doon am ñoo xam ne dama leen xam sa bëri bu ñu dooree bu ñu amee problème ak justice ma woo ko na ñëw bu ñëwee mu jël dossier bi après man sama wàllu bopp lu ma ko jox mu ne ma baax na ma yow sama frère nga loo ma jox donc nit ku noonu doo mën lu ñaanal ko safane loolu moo tax yàlla defar ko après moom carrière bu mu am fës lool si mbirum politique fës si mbirum social fës si mbirum baro euh, bu bu Dakar donc euh, Ousmane euh, pour man modèle la quoi pour les jeunes avocats modèle la pour les jeunes politiques parce que dëkk dafay soxla modèle moom nag mu nekkoon modèle waaw tey euh, métti bi du man rek parce que yëpp ay xaytam lañu woon maa ngi nii kër këram laa jëm dem seeti soxna pour defal ko donc tey Sénégal moo ñàkk ñëpp ñoo ñàkk Euh, presse bi aussi parce que nitu presse d'abord doo ko woo mukk ba mu gàntal la xanaa mu tukki walla mu tawat ba pare li ko dal tey daf ñu bett ñu ñëpp daf ñu bett parce que xamuñu woon ko feebar si fan yi parce que ñu dégganteeg moom di gisanteek moom donc xamuñu woon ne lii dina am pour wax rek yàlla moom moom mooy dogal waaw nañuy ñaan yàlla mu ñuy fekk toujours si lu baax si dogal bi di yegg si yàlla na suuf oyof si kawam yàlla na ko sëñ Tuubaa teeru yal na ko yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéegal ko si àddina yu gën a kawe si àddina ba pare yàlla teg loxoom si njaboot bu fi bàyyi. alors peut question parce que président amul jot mais dem ak tey en général bu ma koy def damay waxtaanee jikko nit ki ak surtout lan la ñu war a jàng si moom ay ay leçons yoo xam ni euh, vraiment war nañ ko tirer si si moom euh, nit ki ñuy waxtaanee donc tey maître Ousmane Seye nga xam ko wax nga ko euh, lu yàgg yàgg la ba dara dul dara jikko yi nga xam si moom ak nu muy doxalee lan nga ci gis ne daal jeunes yi war nañ ko jël aussi bien en politique si si si ñuy yëngu ci wàllum droit. mooy wax dëgg da doon xuloo ñu bari parce que dafa dëgg woon xam nga boo dëggoo da nekk euh, incompris ñi lay comprendre du ñu bari parce que da nga dëgg dafa tàng da nga naqari deret et <laughs> ça dañ ko ko doon waxal effectivement fekk noonu naqariwul deret xol bu baax la yore xolu xale xolu jigéen si lu yore ci euh, baaxaayam mais il était cash beneen bi loo xam ne ne boo lañ ci jàng jël si exemple mooy générosité lu mu am lu mu yore ñëpp ko moom ñëpp ko bokk su léegi loolu dafa nekk loo xam ne dafa commencé vraiment rare si fu ñu suñu àddina bi ñu nekk ak suñu dëkk bi ñu nekk mooy générosité euh, loo am bokk ko nit koo gis mu sonn nga jàppale ko ngir yàlla donc kooku qualité am la woon dëggu bi qualité am la woon boole aussi qualité la woon parce que yàlla dogale ñu bokk tamit nekk sama xarit mais ñu bokk ay yeneen kuréel yoo xam ne ne président mooñ si nommé bokk naag moom conseil économique social bokk naa ak moom dialogue sociale bokk naa ak moom daal ay kuréel yu bari yoo xam ne dañ fay daje mais booy gis prise de parole am ak ay position da ngay xam ne kii moom républicain la même bu doon def politique sax xam nga politique il faut nga am farfarloo mais di nga xam au fond de lui lu ko gën a yitteel mooy Sénégal donc loolu nag dafa nekk ay vertu yoo xam ne dañ si war a jàng xam ne ni àddina moom du dara genre cycle rek dafay jeex ku si nekk am nga loo fi war a taxawal ba nga xam ne ne boo demee nga am jëw bu rafet mais surtout nga bàyyi fa loo xam ne moom lañ lay xoolee di jël référence si yow donc moom non seulement c'est un grand avocat que am naa difficulté di wax ne c'était un grand avocat ah, ah c'est loolu aussi xale yi xam ne ñu ngi jàng droit ñi soog a commencé di door ci baro bi war nañu xool moom lu mu doon doxalee parce que générosité am solo mooy laa la wax léegi mu doon défendre ñoo xam ne amuñu dara ñoo xam ne xamuñu mënuñu ko fay waaw mais yàlla moo ko doon fay toujours ba mu yegsi fi mu yegsi donc yooyu daal euh, Fatou ay qualité loo xam ne ni jàng nañ ko si moom mooy dëggu bi mooy générosité bi mooy dajale nit ñi mooy aussi euh, bëgg sa réew am pas-pas sa réew li ngay def ak acte yi ngay posé ngay xalaat déjà sa réew balaa ngay xalaat sa bopp moo tax tey ñun ñëpp ñu am naxar di ñaan yàlla lii dal suñu kaw mu yéex te di ko ñaana daal fu ñu tollu euh, ba pare daal comme ni ko waxee yow yàlla may la xel macha allah ba tey nga jagle émission bi maître Ousmane Seye parce que lii lu tooy nga am xel am réactivité ba mën a waxtaan si moom kon ñun ay nawleem ay xayitam dañuy rafetlu émission bi rafetlu initiative boobu xam naa fu mu nekk mu ngi déglu yàlla na ko yàlla yërëm mu tëdd gënal ko fii mu jógee waaw gannaaw njiital mouvement des entreprises du Sénégal mi ngeen doon dégg dañuy delluwaat euh, hôpital principal bu Ndakaaru keroog ca levée du corps ba xam ngeen ni kenn wuutewu ko ñu bari ci ay kilifa nekk ci wàllu politique wala ñu mu bokkaloon euh, di def métier avoca ña nga fa woon ñu euh, ràññee ci woon ministre de la culture Aliou Sow mu sekkoon itam ak maître Ousmane Seye lu bari ci wàllu politique bokkoon ak moom au conseil des collectivités territoriales kon ñu teewlu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 di nga ko tàllal loxo ngir jikkoom ak nekkinam ci askan bi ku tabe comme njëriñ man nag am naa chance juróomi at yi ñu génn bala may duggaat ci gouvernement bi ñu nekkandoo au conseil bokkoon conférence des présidents mu nekkoon fa vice président président première commission ba ñu bokkaat conseil scientifique mooy liy saytu xalaat lépp loo xam ne luy ñoŋal wàllu yorinu gox goxaan yi la Sénégal yàggul rek ci bés yu ay ci ginnaaw ma nga jógee ndakaar ba Kaffrine teewal au conseil ci suñu festival ba ci wetu premier ministre sama wet ci wetu ministre ay fan yàggul sama soxna di avocat ni moom ñëw fi mu dajee moom Kaffrine mu dem nuyu ji ko ni ñu koy defee seen teraanga yu rafet yooyu mu koy tàggu keroog naan ko maa ngi dem ak sama soxla Makka ñaanal Sénégal ñaanal Afrique ñaanal liggéey bi ñu bokk delloo ñëw raxas samay samay bàkkaar ñëwaat ñu ngi jàkkoon jàppoon wala gisante moom sax seeti ko añoon ak moom këram ndekete yoo tàggatoo la woon waajal boppam yàlla waajal na ko waajal boppam yàlla na ko yàlla daal aljanna te ndaw ñi jàngat ci jaar-jaaram ci jikkoom mën ci moom defe naa Sénégal la xale yi soxla. Mamadou Diop Decroix nekk itam euh, ku ràññeeku ci wàllu politique euh, teew na keroog ci hôpital principal bu Ndakaaru jàpp lu bari ci metre Sèye mi mu defandool politique bokkoon ak moom itam langue gi ak yeneen ak yeneen Mamadou Diop Decroix njiital And Jëf euh, PADS lii la wax ci maître Ousmane Sèye. Ousmane Sèye du rek en tant que avocat ni laa ko xam ba ma koy xam étudiant la woon université. booba politique opposition yombut lu ne di ko ci daj booba dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ndaw yi nga xam dañu ànd nag euh, ñoom leen encadré ñoom Youssou Diallo yi le nekkatuñu ndaw laa léegi ay mag lañu mais booba loolu moo xewoon usmaan nekk euh, ku patriote ku bëgg réewam euh, booba daal metti woon na daal naa ko waxe noonu Euh, mais dafa taxawoon di góor góorlu ak yeneen camarades am yi université di xeex lu ne fekk na ko ci lu ne lu ne lu ne fekk na ko ci euh, ba mu demee ba jóge ci université yi nekk avocat da doon défendre les causes justes maanaam fépp foo xam ne euh, ay sénégalais ay non sénégalais ay citoyens ñi ngi xeex pour démocratie pour liberté ba ñu bëgg leen a faagaagal moom ci euh, maanaam euh, ci tribunal bi da leen di da leen di défendre euh, ba ñu di leen libérer la plupart du temps ba tey ci acteur politique yi parti démocratique sénégalais yabal na fa ab délégation bu Tafsir Thioye jiite mu wax itam euh, ci euh, lu bari loo xam ni euh, jàpp nañu ko ci maître Ousmane Seye jébbal itam njaalu président Abdoulaye Wade ak Karim Wade njabootu maître Ousmane Seye ñu teewlu Tafsir Thioye mu yoroon kàddu parti démocratique sénégalais. ñëw nañu indi masawu président Abdoulaye Wade indi masawu waa PDS yëpp famille bi nga xamante ne tey ñoom ñooy famille bi nga xamante mais di ko jaal aussi waa Sénégal yëpp parce que maître Ousmane Seye loo ci mën di dégg sénégalais la woon sénégalais la woon bu amoon taxawaay sénégalais la woon bu amoon pas-pas sénégalais la woon bu nga xamante ni bëggoon na réew wane woon na ko ci doxalin wane woon na ko ci liggéey wane woon na ko ci wàllu bi nga xamante ne moom nekkoon muy avocat kon ñu ngi koy jaal aussi ñëpp ñi nga xamante ne ay collègue am lañ woon nekk ay ay ay ay ay ay ay ay avocat comme moom et puis famille judiciaire yëpp ñu ngi leen koy jaal mais ñu ngi koy jaal Sénégal yëpp au nom du président Wade mais aussi au nom de notre frère Karim Wade et au nom de l'ensemble des membres du PDS en tout cas tey jii am nañu raxaar am nañu tiis mais dañuy delloo lépp suñu borom parce que moom moo ko soxla moom moo ko jëlaat kon ñu ngi ñaan rek yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla jégal gannaaw way politique yi nag ñeneen itam euh, fees nañu fa dell ràññeeku ndax robb yu ñuul ya ñu sol te maître Ousmane Seydane ca sol muy robbu avocat ka ca njëkk yëkkati kàddu euh, di maître El Hadj metre maître El Hadj Diouf euh, nekk itam ku ràññeeku ci baro bu Ndakaaru mais wax lu bari ci ay seede yu rafet ci maître Ousmane Seye ñu teewlu ko dellu si Sénégal ñàkk na doomam bu am njëriñ bu am fulla am fayda boo xam ne am na lu liggéey ci réewam ba tax réew du ko mas a fàttee kon tey dañu am euh, tiis naqar bu metti boo xam ni yàlla mi nga xam ne dara tëw ko moom rek moo ñu ko mën a teg ñu nangu ko waaye yàlla mu ñu ko xañ tey na ñu ngi koy ñaan mu teeru ko àjjana bi gën a kawee firdawsi yàlla moom jàppale njabootam teg leen ci siraatal mustaqima may leen tawféex ba duñu jooy ndax sa sax kenn mënu ko ñàkk a jooy waaye duñu jooy Ousmane waaye yàlla may ñu aussi ba xale tey jël exemple ci Ousmane mi nga xam ni dafa xeexal réewam xeexal askanam ci fulla ci fayda bañ a def dara lu ñàkk fayda ndax sa réew da koy bëgg mu jaral lu ne gën a lépp nag te Ousmane ci loolu nekkoon dégg ngeen président wax ko léegi nee na c'est un homme de compromis la koo xam ni ñu te consensus rek pour bëgg réew réewam bañ a taal réewam rek pour réew jëm kanam li ma mën fàtte kuloo Ousmane bu ngeen jàppantee ci dossier tribunal wala ci leneen ci politique bi sax Ousmane moo la njëkk ñëw reera nuyu la wane ni la lii yëpp ay débat xam nga ay ay ay ay ku nekk da ngay sa position mais fair play lañ jàpp ci loolu mooy fair play waaw il était élégant fair play nekkul rancunier nekkul ko xam ni day ñëw pour soxor wala pour di di defante non am na fulla am na fayda kenn du ko yàpp mais nag nitu jàmm la woon ku bëgg jàmm la woon. gannaaw maître El Hadj Diouf keneen ku ràññeeku ci wàllu euh, avocat mais aussi nekk ak tax politique maître El Hadji Amadou Sall yëkkati na ay seede ci maître Ousmane Seye mais delloo ñu sax ca jamono ba ñu nekkee ci université bu Ndakaaru di jàng ak taxawaay ba fa maître Ousmane Seye amoon waraloon mu ràññeeku lool maître El Hadji Amadou Sall. ma mën a wax ci Ousmane rek Ousmane d'abord suma xarit la ndax ñoo bokkoon di jàng université ba ñu nekkee ci euh, euh, étudiants yi ndax engagement ndax dafa nekkoon ci syndicat doon xeexkat la woon ba ñu nekk université déjà mu nekkoon xarit euh, mu nekkoon nit ku am solo xeexkat ba mu jógee université ñëw fekk si ma ci avocat yi ñu ràññeeku ci avocat yi ndax du woon avocat bu tuuti may wax ne Sénégal gépp gis nañ ko xam nañ ko Ousmane Seye xeexkat la wante woon du woon dellu ginnaaw ci xeexam ñu gis nu mu yore njabootam mu yoreen bu rafet ñu gis it euh, dama koy wax at bu jot dina dem Màkka dina umra bi mu jógee umra matul fukki matul fukki fan kon mu doon jullit bu wóor non seulement jullit la woon waaye ba si nekkoon taalibe sëñ Touba ba ñëpp ràññee ko nekk taalibe sëñ Saliou kon dañ koy ñaan euh, sëñ Touba teeru ko euh, ñu ànd wutali sallallahu alayhi wa yàlla jéggal leen waaye xam naa ne aussi bu ñu nekkee université non seulement xeexkat la woon militant la woon waaye it sportif la bokk ñoo doon bokk di jouer handball. maître Mamadou Seck nag moom dafa liggéeyandoo ak maître Sey ci benn cabinet dem ba jaxasoo ak njabootam jaxasoo lool ak maître Ousmane Sey mi mu jàppee woon mag mu euh, yey lool jekk lool ci indi ay seede ci maître Ousmane Sey ñu teewlu ko. maal ñu ñaar c'est moo moo grand frère nekkatuñu woon rek entre avocat ak collaborateur mais c'est moo grand frère muy nit ku baax ku mën a xeex ci dossier maa moom liggéey nañ dossier des dizaines des voire même des centaines de dossiers de gros dossiers de dossiers même de l'État donc avocat la boo xam ne jàmbaar la xeexkat la woon finalement mu def ma comme un grand frère nekkatuma woon avocat kese ci moom moo tax ñàkk naa baro bi ñàkk nañ mais man aussi particulièrement ñàkk naa maa ngi koy ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla xare ko àjjana bu bëggoon Touba la bëgg sëñ Touba yàlla ñaanal ko ba ñuy rek la jóge Màkka yaa de cela deux semaine bi mu ñëwee chaque jour day ñëw sama bureau naan maa ngi leen di ñaanal ñaanal naa baro bi ñaanal naa ñëpp bi mu jógee Màkka ba léegi si Màkka rek la doon wax ndeke daf ñu doon tàggu muy nit ku baax maa ngi koy gërëm a yi ma defa moom yëpp maa ngi ñaanal yàlla li mu doon baax li mu def si cabinet def ko si ñun yëpp yàlla ko ko fi mu jëm man say ku baax la maa koy jaale jaale famille am ay doomam dañ ma def comme seen grand frère moom mu def ma comme un petit frère muy ku baax ma xam famille mu xam mbokkam ñoom benn complicité boo xam ne maa ngi moom ak yàlla rek ñoo ko xam maa ngi koy ñaanal encore une fois yàlla xare ko àjjana kon mbokk yi lii ñu fi jotoon taataan ci ay seede jëm ci metre Ousmane Seye doon ko delloo njukkal di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana di ko jaalaat njabootam yépp di ko jaal képp kuy xaritam di ko jaal mbokk avocaam yi di ko jaal Sénégal gépp di leen gërëm yéen ñu doon teewlu gërëm jaawo jàllo mi ne woon ci jàppandal gi fatu Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi émission bi mën ngeen ko teewlu jiwaat euh, ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel ñu ngi leen di ñaanal kenn jàmm Là, ah, je voudrais d'abord saluer ma sœur et consoeur, Madame le ministre euh, Aïssata Talsan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et remercier le président Manik Tchoup et son organisation, la MEDES, e e pour cette haute distinction dont je suis fier. Mais je voudrais surtout féliciter le président Manik Tchoup parce qu'il a gagné le pari sur l'histoire. Très tôt, M. Manik Diop, vous avez misé sur le secteur public parce que vous avez compris que le secteur public est porteur de croissance et le secteur public est porteur de l'emploi. Je vous félicite pour ça et je vous dis bravo. Et je dédie cette distinction à mon épouse et à toutes les femmes pour faire plaisir à ma sœur aussi Fatsou Sarr, qui est une grande avocate des femmes. Je vous remercie. Avocate des femmes. Je vous remercie. Avocate des femmes. Je vous remercie. Avocate des femmes. Je vous remercie. Avocate des